moom nag ñu daal di koy affecté ci New Delhi rek mu daal fay nekk attaché militaire mais moom nag dafa daal di lànk lu ne ndax itam nangul benn daal di exécuté ni si moom le premier ministre Ousmane Sonko daal di joxe li nga xamante ni moo di ay accord euh, militaire ñeel suñu diggante ak États-Unis fi nga xamante ni moo di Royaume-Uni ak Canada ak France moom nag général Blay mel dafa lànk lu ne ndax jàpp ne loolee du prérogative bu premier ministre waaye daal ki nga xamante ni euh, la République du Bassirou Diomaye Diakhar

déjà bari na jur na polémique depuis démb ci par rapport ak euh, en tout cas euh, li ñu doon wax naan dafay attaqué euh, décret bu jiitu réew mi di di le général kande mu nekk loo xamante ni dama jàpp ne déjà réeroo mën na ci am parce que aussi euh, le président de la république moom mooy njiitu armée bi d'abord parce que le chef suprême des armées déjà kon te aussi boo xoolee sunu conscience dane le président moom mooy nommé. Euh, ci emploi civil et militaire ça veut dire que ni à travers ay décret le président lu mu def loolu ay prérogative am la léegi nag ci loo xamante ni peut-être le président sortant moom moom marigas wala lu mel parce que euh, ñu ngi wax que ni le 29 mars bi ñu génn muy après élection yi parce que le vingt la ñu demoon élection kon 4 jours wala cinq jours plus tard la la njiitu réew mi fi nekkoon def lu ne mel loolu nag nekk am mbir boo xamante ni dama jàpp ne juste kon Euh, rectification la le président Diomaye def mu jur li nga xamante ni moom mooy polémique est-ce que nekkuloon benn pièce bu ñu tendroon le président Diomaye wala déet benn bi aussi moom mooy euh, lu ma doon liir tey suba mooy le général Kanté dafa jàpp ne ci lu mu servir ak aussi tamit li nga xamante ni moom mooy ay gratam waroon na ko mën a permettre à ce que mu am lu gën a kawe li nga xamante ni mu mel dañ koo xaw a dégradé ci par rapport ak euh, attachement militaire bi ñu ko jox depuis New Delhi ci Inde dama jàpp nag ne loolu bu ko ab soldaar amee ci kii kiyam euh, yàlla tere mën na jur parce que koo xamante ni déjà euh, nekkoon nga ay euh, nu mu tudd sax chef de service ci ay yu bëree bari déjà colonel la woon en 2021 et tout ça ak yenn ci kii yoo xamante ni jotoon na ko def pour servir réew mi am na si loo xamante ni ñaanuñu yàlla benn désordre am au sommet de l'État parce que à chaque fois admettons que ni. au sommet de l'état et à l'armée te heure bu désordre amee rek euh, ci loolu yàlla traité mën na jur li nga xamante ni moom mooy fitna Sénégal xamuñ loolu lu ñu xam moom mooy surposition bi nga xamante ni wala ni ñu tëggee suñu armée bi ak nu mu demee sunu li nga xamante ni moom mooy état bi président et tout ça dafa am benn organisation boo xamante ni euh, on naa l'impression que ni depuis bi ñu ko doon tabax dañ doon suuraale ay éventuel coup d'état nga xam ne déjà loolu amee ci dëkk rek Euh, dañuy bëgg à que ñuy woy di continuer ci par rapport ak li nga xamante ni noonu la ñu ko tëggee donte ne nag des fois parle que ni le président dafa war a détaché wu par rapport ak affaire bi ni muy doxee tout ça warul nommer nii sinon dafay am ay prérogatives ci ñoom mais loolu loolu mooy li nga xamante ni noonu la ñu tëggee su ay mbir beneen bi topp mooy euh, bu fekkante ni da nga nekk général da nga daa joxe ay ordre gars yi di exécuter par contre kon yow da nga war a nungoo exécuter li nga xamante ni moom mooy ay ordre que Euh, dama takkatul ban philosophe moo doon wax naan bu fekkente ni da nga bëgg bu boo santee nit mu def ko bu la santee da nga koy def muy kaa bu mel nii rek dama jàpp ne kon loolu nag moom mooy dafa am benn. Euh, manque de soumission boo xamante ni am na ci personne ki nga xamante ni moom mooy Kanté peut-être indi na ay raison muy que ni voilà dañ ko def genre sanction selon yenn journal yi lu ñu bind mais que ça soit sanction wala déet il faut ñu rappeler que ni le président sortant moom moo nekkoon à la hauteur de li nga xamante ni moo am yëpp cest dire moom moo nekk ci centre de gravité bi mooy lii lépp moom moo ko jaxase voulais je dire dama jàpp nag ne loolu euh, tey lu ñu mën di wax que ça président Diomaye dafa def lii dafa wala général bi tout il faut ñu rappeler que ni bu fekkente ni am na benn faiseur de malin ci jeu bi wala am na benn euh, def kotu sale boulot ci jeu bi dama jàpp ne le président sortant la parce que lépp moom moo ko mari gancé peut-être bu fekkan newuloon doon may yenn prérogative yi yu ni mel surtout ci moment bi nga xamante ni fi na ko defee bu fekkante koo def sax en plein peut-être exercice ci ay fonction mën nañ comprendre que da doon def ay euh, remaniement wala da doon def ay euh, en tout cas reconstruction par rapport ak ñoom benn armée bu suudewu wala benn armée boo xamante ni dinañ ko tabax de sorte que dinañ xel di sóoraale te ni dara mën na am loo xamante ni ñaawteef lay doon mais koo xamante ni dem nga ba jeexal nekk di continuer di jëfandikoo say décret ba def lu ni mel tey mu jur li nga xamante ni moom mooy polémique man dama jàpp ne amul lenn lu ñuy reprocher le président Diomaye par contre bu fekkee am na lu ñuy wax dañoo war a wax général bi parce que mu soumettre parce que institution moom moo sant nekkul la personne de Bassirou Diomaye Faye moom moo nekk di exécuté mais tant que jël na li nga xamante wala dès lors mu jël décret nañ xam ne ab institution kon moom mooy santaane à ce que ñu def nangam su ko bañee dafay piétiner sunu li nga xamante ni moom mooy sunu ay institution te loolu xaaruñu ko ci euh, benn personne soldat de formation wala militaire de formation graté def lu nekk vraiment xaaruñu ci ñun loolu parce que déjà ñoom lu ñu gën a rawal nit ñi mooy la capacité bi ñu am ba mën a ak yenn yi xam ne dara bu ñëwee dañ koy exécuté bizarrement dama vraiment jëruloon ñu nekk di cherche midi à 14 heures ne serait-ce que mu li xam nga le premier ministre dafa am loo xamante ni en tout lu ma lire dañ ne le président de la république moo jël ab décret démb lire naa ci article yu bëri sax. Mm-hmm. Euh, décret boobu noonu c'est pas nag peut-être mën naa am benn malentendu mais décret bi le président moo ko jël muy le président sortant. moom moo ko jëloon def lu nu mel le président bi ñëw nag di Bassirou Diomaye Faye daal di changé ki nga xamante ni moom mooy le général Kanté teg le général Maguette Ndiaye c'est pas nag peut-être bu fekkente ni mën na mu nekk volonté bu premier ministre et tout ça mais loolu reste à mais lu ma gën a am solo am solo mooy décret présidentiel la parce que loolu laa gis bien sûr décret président décret la mais li nga xam ne mooy décision yi am ne moom dafa lànk ko du ko daal di jëfee mm-hmm. loolu Ousmane Sonko ci jógee parce que nee na loolu du prérogative premier ministre mais pour président de la république moom la je pense que kon bu fekkoonte ni si ci président la jógee eh, xanaa kon moom dina ko nangu normalement ndax loolu la teg comme comme alibi ni ni loolu du premier ministre mais yëfu président la. non xam nga am na loo xamante ni arrière pensée la quoi muy mën nañ jortu que ni euh, Bassirou kii nii nu mu tudd le premier ministre moom moo am idée bi et mais loolu beneen affaire la loolu compte xam nga moo compte mooy bi ñu la notifié que euh, wala tu as été par lan lañ la ko relever ñu ne par décret lañ ko jël décret nangam ak sangam parce que bu ma juumul takkatuma mais c'est pas xuma décret na nag naan dinaa ko vérifier après nga xam ne déjà kon loolu romb nañ prérogative bu premier ministre mais ñu ngi ci le président moo tax may commencé ma ne la le président de la république moom mooy chef suprême des armées déjà kon moom mooy nommé ci poste militaire et paramilitaire et civil et tout ça dama jàpp ne kon déjà amatul lu ñu nekk di seetlu ñu naan mais c'est le président qui a décidé ça euh, président de la République la ndax mën na jàpp ni ak polémique bi nga xamante ne si moo ci am loolu mën na indi benn crise entre Ousmane Sonko ak euh, le président de la République Bassirou Diomaye Faye. waaw xam nga li am nii je pense que mu ngi guléet justement ñu gis ko ci li nga xam ne moom la ñu woyee la grande muette nga xam ne ñoom euh, dañu am droit de réserve seen communication demeewut noonu donc lépp lu ñu def dañ koy régler dans l'amiable maintenant je pense que nag tey moom selon ses dires ak li nga xam ne moom la tribune bind mooy que kat moom nee na euh, président premier ministre Ousmane Sonko moo ko santoon mu daal di ko lëj mbëtal suñu accord militaire entre États-Unis Canada France ak feneen parce que Ousmane Sonko dafa jàpp ne ñooñu tey dañu ñu espionné maanaam tey booy wax WhatsApp wala ngay envoyé vocal wala ngay wax téléphone wala ngay def leneen fépp application boo am ñoom lépp loo envoyé minute suivant dañ koy am maintenant pour Ousmane Sonko nag dafa bëggoon à ñu rompre li nga xam ne rek moo di suñu accord militaire yooyu mu sant ko ko. Mhm. selon yéenekaay bi nee na Souleymane euh, Kandé. nee na du prés du premier ministre moo ko war a sant mais c' est le président parce que c' est le président aussi quoi qu'on puisse dire. Mm-hmm. c' est le chef suprême des armées. donc moom moo war a dal di je pense que jouer ce rôle maintenant nag mm-hmm. lu am la ak lu amul benn version moo am benn version moo génn. et que nit aussi booy atte dangay xaar ba les deux versions génn mais ce qui éminent ak lu am te ñëpp gis ko mooy président Macky Sall avant muy defi bàyyeekoo. moo jël benn décret maa ngi nii ak décret bi dinaa ko lire Sénégal yëpp xam lan moo ci ne. Mhm. moo jël benn décret changer un peu les statuts parce que d'habitude boo nekkaan li nga xam ne moo di général ba wàcc forcément da war a nekk ambassade mais bi muy dem dafa changer un peu cette stat euh, dafa changer statut bi bi mu ko changer nag daf ne saa boo nekkee euh, général ba wàcc mën nga nekk benn attaché militaire ci dëkk. mais kon coow li lan moo ko fi indi yaakaar yi peut-être démb dégg naa sax moom tout suite mu génn way dañ maa sanctionné dañ ma def ñu def ñu def ne démb aussi je pense que xam nga am na loo xam ne aussi mm-hmm. euh, du da ngay toog fii di ko wax parce que peut-être ay ay raisons la wala peut-être ay raisons sécuritaires et cetera mais quand même je pense que am na ay propos yu fi président Macky Sall yëkkati woon à comme quoi que yenn acteurs politiques yi su ngeen réglé wul am na ñeneen ñoo xam ne kat ñu nga fee mën nañ jël nguur gi maintenant je ah. pense que des propos yoo xam ne waxoon na ko à l'époque tey je pense que ces propos là am na ñu koy contextualiser par rapport ak li nga xam ne moo am tey waxuma ne loolu la wala c'est lié par rapport à ça mais je pense que am na ñuy def un peu cette liaison pour man dama jàpp nag coow lii am yëpp daf ko ci daf ko ci jarul yow ay nit ñoo la fa tegoon ay nit ñoo ne nag jàpp ne kat peut-être liñ la santoon au niveau de la Casamance parce que il faudra aussi reconnaître que ne euh, Souleymane Kandé mi au niveau de la Casamance quand même def na fa ay liggéey yu am solo gis nañ depuis des années muy xeex ak rebelle yi mm-hmm. dëkk yoo xam ne sax nangu woon rebelle nangu woon nañ ko mu xeex également ba récupéré waat ko lu soxal wàllum bay yamba bay et cetera ak li nga xam ne moo dagg euh, wàllum bois bi et je pense que joué na boo xam ne kat rôle bu déterminant la rôle également bu am solo la boo xam ne jot na ko joué dans cet effort aussi am na ay nit yoo xam ne génnoon nañu wala am na ay nit également yoo xam ne defoon nañu ay sorties wax ne kat ñoom kontaan nañu ci par rapport ak Kandé nu mu yoree li nga xam ne moo di mbir mi au niveau de la Casamance am na sax ñu ne y' a beaucoup li nga xam ne rek moo di militaire yu surcombé par rapport ak yenn patrouille yi ak yenn combat yi nga xam ne ñu doon ko amal ak rebelle yi maintenant je pense que yooyu peut-être c' est yoo xam ne ñu ngi ko wax mais justement pour revenir ci décret bi nga xam ne président de la République du président Macky Sall moo ko fixant le statut particulier et définissant la mission des attachés de défense et de sécurité auprès des ambassades à l'étranger euh, la président de la République peut-être foofu kii dafa bëri mais boo demee ci déjà ci décret euh, ci décret chapitre numéro un ci statut bi mu ngi ne dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de défense il est créé auprès de certaines représentations diplomatiques sénégalaises et conformément à l'engagement des postes diplomatiques une mission militaire permanente placée sous l'autorité d'un officier général ou supérieur des forces armées chef de mission militaire mu continuer toujours ne euh, l'officier chef de mission euh, militaire euh, prend l'applica euh, l'application attachée de défense et de sécurité euh, près l'ambassade du Sénégal au pays decrédation maanaam dëkk boo xam ne euh, sénégalais am nañu droit ñu am fa li nga xam ne moo di ambassade ci loolu aussi boo continuer toujours mu ne l'attaché de défense et de sécurité ainsi que les militaires mis à la disposition des ambassades ont la qualité de membre de personnel diplomatique maanaam moom bu ñu ko yóbboo tey moom dafay mel ni c'est c'est un diplomate maanaam privilège yi nga xam ne gars yi dañ koy am daf koy am comme salaire peut-être loolu la yor si wàllum euh, li nga xam ne moo di moo di li toujours euh, je pense que il suit voilà de tous les euh, et immunités reconnues aux diplomates article 2 mu ne l'attaché de défense et de sécurité est nommé par décret dans les manifestations diplomatiques et sauf ordre contraire attaché de défense et de sécurité a prescience sur sur euh, toute personnalité militaire sénégalaise en service dans sa juridiction, quel que soit le euh, grade de euh, celle-ci. Dans toute autre circonstance, la présence la présence est fondée sur le grade et li nga xam ne moo di l'ancienneté loolu je pense que mu ngi wax ñoom ci anam bu ñu leen di kii et cetera et tout mais boo demee ci article 3 également mu ngi wax l'attaché de défense et de sécurité est placé sous l'autorité direct de euh, l'ambassadeur notamment euh, pour euh, tout ce qui concerne l'organisation du travail et la répartition des tâches au sein de l'ambassade, ainsi que la discipline et, la, et le comportement il a rang de avantage du ministre conseil mooy li ma doon wax tout à mooy ci wàllum privilège et cetera l'attaché de défense et de sécurité est compétent sur l'étendue de sa juridiction de l'ambassade maanaam daal fii li étendue ambassade bi yem yëpp moom am na droit mu doxal fa yenn ci li nga xam ne moo di ay privilèges ba tey mu continuer toujours sur article 3 mu ne il est porté annuellement par l'ambassadeur sur son rendement et ses euh, qualités euh, mini bi daa xaw a kii et ces qualités morales euh, exclusivement ces notes sont transmises euh, d'une part par décision car euh, selon le cas au chef d'état-major général des armées et au co-commandement de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire qui après avis le sommet de l'opposition euh, le l'approbation du ministère chargé des forces armées et d'autre part pour informer au ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur toujours article La notification des autres membres de la mission militaire révèle de la compétence exclusive de l'attaché de défense et de sécurité qui exerce à l'égard de son personnel et de tous les autres militaires euh, pervers euh, présents sur le territoire du pays de euh, juridiction des prérogatives de commandant de zone militaire. Article 4 mu ne l'attaché de défense et de sécurité peut être assisté à un officier des forces armées qui prend Euh, l'appellation adjoint attaché de défense de sécurité ça veut dire que déjà moom président Macky Sall bi mu fi bàyyee ko jël na tout ce li nga xam ne mooy décret bi ba am na sax nu mu ko nu mu ko daal di orné moo tax boo demee ci article 4 boobu mu koy daal di euh, li nga xam ne moo di définir boo demee également ci article 5 bi mu personnel militaire autre chef de mission militaire est affecté conformément aux dispositions du décret régissant et affectation dans les postes euh, diplomatiques et euh, Euh, assimilés euh, selon leur catégorie et leur hiérarchie correspond euh, correspondante du personnel civil sénégalais de leurs ambassades officier adjoint conseiller d'ambassade sous-officier comptable secrétaire ambassade autres sous-officiers euh, attachés ambassade euh, militaire de rang personnel administratif et technique déjà nag boo demee ci chapitre 2 bi foofu mu ngi wax un peu euh, ci par rapport ak li nga xam ne moo di leur mission foofu du fa tardé mais damay ñëwaat ci dernier chapitre bi mm-hmm. bu muy waxee chapitre 5 la xaw ma 6 foofu lay waxee disposition finale mm-hmm. article 15 mu ngi ne le le présent décret abroge le décret numéro 30 104 du 3 octobre 1980 fixant les statuts particulière et définissant la mission des attachés militaires auprès des ambassades à l'étranger. Article 16 mu ngi ne le ministre des forces armées le ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et le ministre des finances et du budget sont chargés chacun à ses en ce qui les concerne de l'exécution du présent décret et qui sera publié sur le journal officiel fii à Dakar le 29 mars 2024 lañ ko lañ ko di def par président Macky Sall je pense que mm-hmm. kon coow li dama yaakaar ne war na mën a jeex ci ci ci par rapport ak cette affectation maintenant nag euh, dañu ne ci dëkk boo xam ne kat euh, am nañu loi am nañu des juridictions

ak nu muy doxee peut nag doonu loo xam ne lu ñu faral di gis sécuritaire boo xam ne daf ci impliqué tout moo tax il faudrait faire beaucoup d'attention dans cette affaire et pour man su ma doon moom naa dem occuper cette poste bañ fi indi ay coow di xëccoo et cetera et bu ñàkkee aussi lan la ko mën a indil je pense que état aussi kenn xeex ak moom dans cette dans cette situation donc je pense que ñoo la fa tegoon dem nga ma gis ne kat li nga fa liggéeyoon peut dañuy indi xeex boo xam ne gulet lu ne war na ci mën a xew et je pense que c'est une question sécuritaire boo xam ne quand même il faudra faire beaucoup d'attention d'accord Bamba mais pourquoi Ousmane Sonko boole ci yeneen dëkk yi vu que mu jamono bi nga xamante ne si mu ngi opposé wu da doon wax accord yi nga xamante ne moo dox suñu diggante ak France rek yooyu la bëgg a daqal mais tey bu diggee bëgg ci boole yeneen dëkk lu ci mel ne Canada États-Unis Royaume-Uni ak yeneen pourquoi yeneen yeneen dëkk yi mu bëgg leen ci boole encore waaw mais xam nga dëkk aussi bu fekkee dafa bëgg a autonome bu fekkee dëkk aussi dafa bëgg am indépendance aussi dafa am loo xam ne c'est inadmissible est-ce que tey Sénégalais am nañu droit déglu ay communes communication unis wala France c'est impossible amuñu ko pourquoi ñoom aussi ñuy wéy di am benn mainmise di yor également tout ce qui est technologie di am euh, également euh, benn euh, peut-être di dugg ci li nga xam ne dama jàpp ne loolu ay top secret la parce que conversation entre nit ak ci ay yooyu di uti ba mën ci am benn mainmise di ko déglu bon je pense que là dama jàpp ne c'est anormal mais non je pense que tey lii dafa doon ay yenn accord parce que mais da dama jàpp ne ab réew kat su bëggee am autonomisation bu bëggee am également indépendance bu bëggee libre ci par rapport ak li nga xam ne moo di ay doxalim et cetera mel mais réew moomu tey dafa war autonome dans tous les secteurs d' activité si que moi j'admets que lu jëm ci dans les mais aussi daa am loo xam ne rafetul parce que soo gisee suñu lëkkaloo même ak les israéliens lan moo ko waraloon c' est parce que aussi ñoom ci wàllu jëm ci wàllum espionnage lu jëm ci créer faux compte lu jëm également ci wàllum caméra compliqué ça pour vous dire que tey peut-être tey lu jëm ci projet souverainiste lu jëm ci également panafricanisme bi nga xam ne le dio Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu ngi koy doxal peut loolu dafa bokk ci loo xam ne kat tey lu ñu war a xeex la lu ñu war a moomeel la parce tey bu ñu demee ba tey suñu défense ak suñu lépp ñoom tubaab yi

ne moo ci woon mais daal pour l'instant je pense que mbir mi am na loo xam ne les waxul pour man daal il faudrait pas qu'on pense justement euh, par rapport à ça et que l'état euh, l'état actuellement wax na ne dafay bëgg a li nga xam ne moo di base militaire française bi et bi ñu ba gis ne am na yeneen accord militaire yu ñu lié ak yeneen pays même si que amuñu présence au niveau du Sénégal mais je pense que ba léegi ñu ngi doxal loo xam ne ay euh, ay ay données personnelles et là dama jàpp ne les données personnelles aussi dañu ko war a encadrer dañu ko war a vraiment nëbbu dañu ko war a teg ci anam boo xam ne kat waruñu dugg dans situation moo tax mbir la boo xam ne daal war nañu ko régler de façon globale. en tout cas doy mais euh, doon diggante armée ak yenn ci politique yi moom mu ngi mu ngi xaw a jaxasoo tuuti moom mu mel ni ñi fi nekk actuellement dañoo waxoon ne dañuy abroger lépp loolu